ngeen jëfati mbokk yi ci seen àndina ak le buzz la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu ngi ak suñuy naataango yu Sénégal Buzz 221 xam ngeen ni dafa yemeeku bis bi di 11 bis la boo xam ni euh, ci la oustaz Modou Fall woote ak euh, li nga xam ne mooy daara internat Medinatul Rasoul bu nekk fii ci euh, Kébémer li mu woote nag mooy deuxième édition grande journée du Coran bi nga xamee ni moom la woote fii ci Kébémer macha allah ngir wane li nga xamee ni mooy njàngum alquran mais aussi bi nga liggéeyal alquran mais aussi daara ji nga xam ni mooy daara Medinatu Rasul am na ko looloo waral seen buzz ak Sénégal buzz 221 ñëw di ne wax dëgg yàlla waajur la si ñun ndax mooy waajur ki nga xam ni mooy euh, oustaz Modou Fall di suñu yaayu bopp moom it bu ñëwee ci bis bi jaadu na ñu may ko occasion mu wax ak sénégalais yi wante tamit yëkkati ay kaddu yi encouragement jëmale ko ci ki nga xam ni mooy doomam mooy oustaz Modou Fall euh, yaay booy pour commencer rek maa ngi lay jéggalu yaay booy dama laa sonal wax ji sax xam naa ni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala bu sante yàlla julli sang yi di gërëm sama ñaari wayjur di ñaanal nag papa yi Modou maa ñaanal kenn ñaanal ko ndax lépp moom la parce que bu toppatoo woon Modou bis bi du am ginnaaw ba ma sante yàlla sant naa ko ba ci kanam yàlla muy baay bu mat baay doomam mosul xiif musul mar musul rafle musul feebar te toppatoowul njabootam ba nii ma leen di waxee xamaguma lu ceeb di jar walla dëwlin wala dund walla dara dara musul maa ngi këram boot ñépp nag fami bi ñépp asfaal boot na leen yal na yàlla guddalu fanam bàyyi ko njabootam bi ba lépp lu mu si nisar yàlla àggale ko di sant jullit yépp nag di sant këri këri këri diine yépp ah Modou Fall nag bu ngeen ma ci laajee duma mën a sori ndax xol bi day tooy ndax doom la joo xam ne doom ju sagal ay waajuram doom ju teral ay waajuram doom ju noppal ay waajuram lu ma bëgg lay bañ a dégg lu papaam bëgg lay bañ a dégg te nim ma jàppee noonu la ma noonu la jàppee sama njabootu aas samay rakk yi ci biir kër gi noonu la leen jàpp jàpp ay doomu baayam jàpp famille bi yépp Modou lii laa bëgg lay bañ a dégg di nit ku baax kenn mosoo ko a àtte ci xeex tontu bii sax bu tëndee ba tontu ni sax man damay jaaxal ndax juddu na ba màgg ñi mu bokkal bàyyi ci kër gi ak ay fameem mosu cee xuloog doomu aadama ba muy gone ba toll nii kon dama koy ñaanal bu baax di am mbégte nag bisu tey bi parce que lii mbégte mënu koo paas bisu alxuraan bu toll nii sa doom ñëw ba man fi ma juddoo sama fam yépp ne fi mu defal ma ko fi mënuma koo fay te nit fu mu juddoo dina am ku ko bëgg am ku ko bañ xam nga kon bu ñëwee defal na nii nag mënuñu koo fay sama xol bi dafa sedd ba ca kanam yàlla di ñaanal ustaas ah. yal na ko yàlla musal ci cat ak képp ku mu àndal képp kuy jullit ñaan gi yaa ngi si mais ko dul jullit sax te yàlla bind la yaa ngi si biir ñaan gi yal na ko yàlla defal lépp lu mu bëgg yàlla musal ko ci cat làmmiñ ak lépp luy rore bu fekkee ni ñaanu way jur mooy aar doom bu mu tiit bu ragal parce que fer na suñuy rangooñ dara métteetun teral nanu déggal nanu yiir nanu bëgg na sunu njaboot déggal nanu maa ngi koy sant ba ca kanam yàlla wax dëgg yàlla Modou Fall taaw bu baax la nit ku baax la gërëm nañ ko sant nañ ko macha allah. waaw. li ma la njëkk bëgg laaj bisu alquran la woote tey. Mhm. macha allah yàlla def ko muy borom xam-xam ñu xam ko ci diina ak taxawaay bi nga xamee ne mhm. am na ko. bu ñuy wax jaar-jaaram ci jàngum alquran yaa ngi fàttaliku bañ koy yóbbu daara. Mhm. ak nan nga ko dundee woon c'est vrai que xëy na boobu xele bu ndaw la nga war a bàyyi sa doom mu nekk xele ñu yóbbu ko daara ci ay condition yoo xam ne xëy na xamoo ko. boobu dama génn ba ñëw <coughs> de marché ba ñëw ma fekk papaam jënd waxande yooyu ñu yóbbu daara ji ma ne ko sëñ bi aas lii lan la mu ne ma xale yi day laa bëgg ñu jàngi ma ne ko ay aas li tax waxoo ko bii avant muy ñëw mu ne ma déedéet jarul ma la koy wax ñaanal ko ñu boole koog nag sama doom rakkam kooku moom mënuma koo tudd sama doom jooju mu àndaloon daara kooku mënuma koo tudd ndax doom la woon ju gën waaye borom bi tabaaraka kenn du xëccoog moom kooku mi ngi jàng alxuraan at ak genn wàll lanu ustaas woon ni Pape Fall mokkal na mu tari papaam teral ko rayal ko nag baasal ko ñëpp ñëw mu génne ko fa dugal ko araab mu mel ni moom la nàmp moo toppoon ci Modou Fall yàlla def bi mu amee ñaar fukki at la doon jàpp ci dex bi rek yàlla jël ko borom bi loolu moo ko neex bu neexoon ñun sunu wax bii du egg ñu sant yàlla nag di ko ñaanal mu xippee ji àjjana waaw alxuraan moo du lum ci am yàlla ak papaam moom laa koy ñaanale ndax boobu réew mi metti na mu jël sama njaboot bépp yóbbu leen daara ba ma des sama benn caat bu jigéen mu yóbbu leen daara ñoom ñëpp di fay fay bu seer. papa njabootam gi yëpp ci diina la leen di yar daara la leen di. ñëpp daara góor ñeeg jigéen ñi ñëpp ñu ngi daara ji yàlla dimbali nag sama njaboot bépp mokkal alxuraan ma di ko sante yàlla bu baax a baax di sant as. Modou Fall ba mu juddoo ba am juróom-ñaari at lan ko yóbbu daara fekk na avant muy dem daara nekk xale. day ajal day dajale ay nit ñi day def conférence boobu juróom-ñaari at yi motagul su ko defee maamam yaayu aas da koy fekk si mbedd mu ne ko dugal si biir gone gi xale bàyyi li ngay def teel na ci yow duggal mu ne ko maam damay gàmm xam nga boobu nit lañ naan la ko yàlla nar a defar rek day feeñ boobu Modou noonu la doon def papaam yóbbu ko daara mu jàmbaare nag jàng ba mokkal ba ñëw ci kër gi ñu feetal ko mu defe ni day ñibbi si papaam ni ko des ngeen da di jàngi xam-xam yóbbu ko ci benn papaam ñetti mbaar mu def fa ay at mm-hmm. ba mokkal alxuraan mu doo koy dagg ñi jaayam daggal ko bee mu dem Italie bi mu demee yàlla ni ko lii mooy sa métier mu nekk ci yàlla nag ñu ko ciy sant bu baax a baax ndax moo du Fall métier bii teral nañu ci mais mais yaay booy wax nga ko euh, ci bitim réew sax ci laay wax ak yow bitim réew dégg naa dafa dem euh, xëy yàlla def comme ni ko waxee ci olof bitim réew neexul ci moom xëy boobu yàlla tamit alquran la namm ci moom ak barkeb alquran euh, bi mu nekkee bitim réew te mu nekk nitu daara jàng ba yàlla may ko xam-xam nan ngeen doon dundee loolu jàppoo leen woon ni xëy na comme ni ko olof di waxee yaakaar bu tas la woon wala nu ngeen ko doon dundee ngeen sonn ci moom ci daara ji mu wëlbati ko dem nekk moodu moodu te na melul na waroon a alxuraan lépp lu ci waay yëngu alxuraan lay teral ma ànd ci kontaante bu baax a baax a baax ndax alxuraan bi muy nekkoon bàyyi liggéeyam boobu alxuraan mooy dëgg mooy jëkk mooy mujj ñu ànd ci kontaante bu baax nag ndax ñun alxuraan lañ xam papaam alxuraan la xam kon biñ ko déggee danoo sant yàlla ree danoo reetaan rek ñaanal ko hmm. la mu jëkk a liggéey ca Italie la ma yaay ma ne ah, mu ma am naa fukki junni bi ma jaayee ñaari fan yi am naa fukki junni joxal sama papa juróom-benni junni nga jël ñeenti junni ndax moom laa jëkk a liggéey billaahi wallaahi maa ngi ko génnee booba kii moo am orange orange moo ne laa ko génnee ji bis boobu dama kontaan ba léegi bu ma rombee foofu mi ngi sama xol ndax mbégte bi ma ci amoon waaw Modou di doom ji nu gërëm ak ay rakkam man yàlla damaa defal damay sant yàlla bu baax a baax a baax julli ci Mouhamed sant seen pàpp bi leen teg ci diine yàlla dafa def samay doom maa leen gënal seeni bët moo tax su ma déggee ñu koy wax naka su dul noonu dama koy jëkk woo téléphone ni ko Modou mu ne ah Oustaz mu ne ah ma ne ko bul tontonte du sa wàll bàyyi lépp ci loxo yàlla yàlla dina leeral lépp incha allah te kuy liggéey ci média yaay dégg lu ni man awma ci benn problème sant yàlla rek laa def waaw euh, yaay booy wax nga ko bu weesoo li nga xamee ni jot na ko am daar jaar jaar ci mbirum diine ak fi mu toll euh, macha allah yàlla may ko mu nekk conférencier boo xam ni wax dëgg yàlla nit ñi bëgg nañ ko ci réew mi euh, fi ko sénégal yi teg nit ñi bëgg ko lool waaye tamit dañ koy faral di wax naan dafa mel ni dafa pànk pànk googu yaay booy lan nga jàpp ni moo ko def ci moom pànk gi day moom xam naa ne moom Fall doo na nga ko layam ku sant Fall da nga laabi da nga baax du jàpp mer nag ak lu la mën a wax eggul ci xolam mën naa wax ak yow ñaari baat mel ni du woon moom wallaahi laa si du jàpp non non paaleen yi la ci ay maamam la ku sant Fall dafa bari lu muy bañ eh, eh. kenn du ko yéeg eh. loolu rek la waaye moom sax moom defan ju histoire xuloo man da mosuma koo gis si moom moo tax fan yi bu tontoo dama koy wone ni yow Fall léegi dangay tontoo xamewu ma la ko. mu ne ma yaay il faut <laughs> ma ne ko bul tontu du sa wàll. waaw ma ne ko du sa wàll. nit ku baax day muñ xool ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sagam yonente bi moo am ñu ko doon teg ay baadi ñaaw asimala ak Modou Fall ak ñeneen mag ñu baax ñi ko fi jiitu sant yàlla rek moo liggéey bi ànd yal yàlla barkeel yàlla guddal fanam denc leen fa yàq yéegul ñoom ñëpp ci daraja yonent bi yal na ko yàlla teg loxo nee naa ko bul tiit doo ragal ndax ñaanu way jur am nga ko te sant naa la ba ci mu yàlla sant sa rakk yi toll topp ci yow sama doom yépp laa sant ñoom ñëpp ma bëgg ñoom ñëpp ma teral yal na yàlla barkeel ñëpp ci daraje yonente bi barke sëriñ Babacar Si Maalik yal na yàlla eggale bis bi mu sedd ba ci kanam fi may jeexalee balaa ma lay may occasion nga nga gërëm say mbokk yi teew ci bis bi yëpp lan ngay fàttaliku lu la gën a marqué ci jaar-jaar oustaz Modou Fall moo xam ni peut-être loo mas a dund lu neex la wala comme tiitaange boo xam ne mas nga ko am ci moom ci Modou Fall yàlla nag dogal na wax dëgg yàlla musuma def lu ma naqari da fàttaliku hmm. non léeg-léeg nag du ñàkk euh, yu sew yi am ci famille mm-hmm. waaye nag danga koy comprendre jaboot moom day boot ñëpp yiir ñëpp mm-hmm. fàttaliku ma lu mu mën a def daal loo xamante ni man lu ma naqari la mm-hmm. bu dëgg dee dëgg rek man xaw ma ko lan moo la ci gën a neex jaar tamit nga gërëm say mbokk ak say am di koo xam ne rek wax dëgg yàlla jàpp nga ne am na taxawaay bu am solo ci njaboot geeg oustaz Modou Fall sa jëmm ji. waa mi maa ngi sant yàlla bu baax di sant uh, sama njaboot yëpp sama doom yëpp maa ngi leen di sant njabootu pa oustaz Fall. li nga xam ne ci këram laa njëkk a wàcc may xale bu ndaw muy magu aas foofu la nekkoon fii ci Kébémer ba yàlla def ñu dem tuxu fee maa ngi koy ñaanal bu baax tey woon na ma tey bu rafet alaaji baara rakku as la sama xarit la dafa génn àddina ak ay soxnaam yal na yàlla teral leen di ñaanal mbay Babacar sama doom di doom ju gën Abdou Aziz Ahmed ak lamin ak Njoogu Fall sama doomee rakk yooyu ca kër ga maa ngi leen di ñaanal di ñaanal nag soxna mbay maane bi ummi Fall nit ku baax sama goro la ñu ma déggal comme ni mu fekkee aji mel noonu rek moom itam noonu la mel noonu dama leen di ñaana rek lépp lu ma am ci kër Baye Ass Fall yan na leen ko yàlla jox. yaa booy aji yóbbante na ma nag. nee na mën naa wax sénégalais yëpp aji may fàttali ni mooy soxna oustaz Modou Fall nee na naa wax sénégalais yëpp ni gërëm na jëkkëram sant na ko ñaanal na ko kaddu yooyu lu muy def si yow. waaw Modou moom ñëpp ko gërëm ndax man mii yaayam ak papaam ak famille bi ñun ñëpp ko gërëm. xam nga dafa am doom juy jàngal juy tàngal famille ay fameem am doom joo xam ne day seddal fameem mu da yàlla da ko boole si doom yi seral ay fameem teral seeni famille seddal seen xol xam nga lii dara dàqu ko nekk ci kër ak kër ni mu méttee ba ngay xale bu ndaw dugg ci kër gu mag di góorgóorlu ba yàlla jox la lii ci kàttanu yàlla la nag yàlla lépp yàlla la loolu bés dara dàqu ko yal na nekk njiglaayam rekk waaye bis bi ñëpp ci kontaan boo rombee baas bi rek même boo ko bokkul ak Modou sax sa xol day sedd danoo kontaan ndax alxuraan mooy jëkk mooy mujj moom rek moo fi ne leneen nekku fi yal nañ ko yàgg a topp comme ni nu ko yàlla sant yàlla bàyyi. lan daara kooku laay ko ku koy def rek man damay waxtaan ak xale yi ku sa doom dem daara nii. booy jooy man damay dem ba si yow jooy naa nag du ma du kii suur bi xale yi demee daara. añu ma bis boobu. reeru ma ah damaa meer ba merewaale waale papaam mi ko yóbbu. parce que boobu ñaari doom rek laa am. ñoo doon sama wéetal mu koy yóbbu leen ma yor seen rakk bu ndaw muy nàmp su guddee damay wéet papaam day ne ci àll bi day liggéey du ma gis kenn bu tëddee dama leen di image su sama doom boobu gaañu nga xam ne kooku dafa nekkoon ci sama xol dama ko bëgg yàlla def li gën fii ni ñi mu doon jàngandool ku ma ci gis rek day mel ni man Pape laa gis ah ñëpp sama ñi mu bokkaloon kalaas muy doom ji yàlla gënal waaye nag yàlla lu ko neex mu def bu ma gisee ñi muy àndal ba xaritam yi ñëw ci conférence bi xaritam yi di xarit yu gori ba léegi dañ may woo di ñëw kër ga di ma seet di ma nemmeeku yàlla nag dimbali ma fa ma féete woon yàlla xam na ni bu ma génnee lam ma daan defal yàlla damay jox moroomam mu ma koy defal. muy lu ma jaaxal nag damay génn yor saang ni mu diis léegi rek ma wàcc war a ñëw ci kër gi damay dox rek moroomu Paa Fall yaay booy indi ma ngàbbal ma ci kër gi bu ma jëlul taxi ma ne lii mbiri yàlla la hmm? moo da daan ma wax sama yaay dafa bëgg paafaal ba bu ñu toggee ginaar da koy nëbbal dara. benn bis nag ma dencal ko pooju ginaar nag dafa bëggoon ginaar. du jaare ma ginaar nag xam na fi ma ko teg <laughs> mu dem ne coono ma ne ko moo li ma dencoon mu ne ma Pape nga ko dencaloon Modou Fall moo ko jël tey <laughs> loolu day am. waaw waaye man ñépp laa bëgg Modou Fall. laay daara na ñëpp bàyyi seen doom yi ñu jàng ndax mooy dëgg. jaara moo mën a defal nit. ba doo tux doo naan doo wax lu bon doo iñaan surtout kiñaan daara da koy dindi a ah, xam naa nag mun na am ñuy dem daara di tux di naan waaye ñu ci bëri yàlla da leen di teggi lool waaw doo iñaan doo soxar a ah, te sa xolit day rafet ñëpp ngay yéene jàmm daara daal maa ngi wax xale yi képp ku sa doom toll ci jàngi alxuraan demal nga bàyyi ko mu jàngi wàññiwul dara waa jërëjëf. Ah. kon jaar-jaaram bi ma si gën a neex suur bi ma woone ma Modou mokkal na alxuraan beneen bi ci topp bi mu ñëwee ni damaa bëgg a yóbbu sama papa mu siyaara ji Maroc ma defaral ko kayitam fas naa yéene yóbbu ko Màkka. keroog sama xol sedd na ma ne ko sa papa lépp loo ko defal ferte la man bala nga maa yóbbu màkka na sa papa daw sa faak ba pare feeg sa papa demul man géey duma dem incha allahu rabbi waaw te am na yéene bi te dina ko yóbbu incha allah moom rek lañ koy ñaanal waaw wallaay waaye kontaan naa ci yéen congaan maa ngi leen di ñaanal di ñaanal waa Kébémer yëpp di ñaanal sama famille bi di ñaanal nag sama mag bi nekk Italie mooy sama taaw yaay kooku kenn du moom yàlla na ko yàlla teral moo dugge kenn du moom ak ñi mu bokkal ñëpp famille bépp waaye moom kilifa gu mat kilifa la feete nanu baay na nu ñijaay teete nanu teete samay doom yal na leen yàlla teral waaw di dellu ci ñaan bi nag alaaji As kooku duma jóg di ko ñaanal ndax kooku day way juru mat kilifa alaaji aas day may way jur bu mat kilifa yal na yàlla bàyyi ko njaboot yàlla guddal ko fanam si daraja yonente bi yal na yàlla teral ko li mu ko teral yal na yokk si daraja yonente bi. <laughs> léegi naa daal léegi daal dafa dafa moom loo xam ne daal moom. ah ah Modou Fall nee naa ko loolu waroo ko ne ndax yow say aawa la. ah li tax muy wax waxu ñaareel te eh, jabaram bi jabar ju baax la de aji njaay xuloowul xeexewul man mosuma dépassé sama palaas la ma teg ba ko Modou indee ci kër gi ba léegi lu ma ko wax bu ma nee weex na mu ni tàll bu ma nee ñuul na mu ni kukk daf maa jox sama palaas te xam nga ni jigéen bu sant Guèye nag du lewet waaye aji daf maa jox boppam yal na yàlla teg sama góor yëpp nag. mais ah. non aawa yi xam naa dañuy kii nii rek waaye dañuy jubboog moom. ndax man maay seen maay yaayam te man aawa buuru këram la. <laughs> waaye nag moom xam naa ñaareel tam tam lay faral. <laughs>